salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ñëpp ñu ñëw ak yéen ci seen rubrique bii di 100 pour cent nawetaan fii nag lañ koy dooree fii ci Richard Toll la cité sucrière démb nag jeune 8 ñoom ñoo aye woon loolee nag mi ngi jëm ci seen première journée fii ci Richard Toll stade municipal bu Richard Toll résultat yi nii la fa tëddee. ASM démb moo doon jàkkaarloo ak ASM mbooloo mi ndam demul ndam dikkul kenn ku ne benn bal nga dugal ci sa kangu morom ñaareelu waxtu ba ASC Gallo Malick moo doon jàkkaarloo ak ASC Ndombo Sanjiri Gallo Malick moo ko dóor benn bal ci dara loolee mooy résultat démb zone huit première journée tey nag programme bi day wëy zone huit ba léegi ñoom ñoo aye tey ASC kii di yaakaar mooy jàkkaarloo ak ASC Lac de Guiers loolee mooy premier heure bi ASC Manko mooy jàkkaarloo ak ASC espérance loolee mooy deuxième heure bi kon tey jii zone huit mooy yeggali première journée ñaari match yu am fii ci stade municipal bu Richard Toll première heure ba mu ngi commencé quinze heures maanaam euh, trois heures bu ñu añee ba pare rek tuuti ci kanam lay commencé deuxième heure ba 17 heures lay commencé bu ñu jullee sant ba noppi rek kon gaa ñi ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen dem ci stade ba ngeen supporter seen équipe waaye nag information yi ñu am ñu ngi ciy sant suñu grand maskot moom mooy président bi sax liggéeyam rafet na lool ñu ngi koy jaajëfal ak Seydina sama copain maa ngi lay nuyu bu baax. ñu jógee Richard Toll waaye dañuy randu rek dem Saint-Louis fekk fa sunu grand Moussa Niang borom wagon sportif bi information yu ñuy am fële Ndar moom mii kat ci wagon moom lañ koy jëlee. ñu jox leen résultat ya ñu amee fële ca ndar démb zone neuf ñoom ñoo aye woon seen ñaareelu bëccëg nag euh, ASC làpp ndeer moo doon jàkkaarloo ak ASC ngalel waaye làpp ndeer dañ ko làpp ndax 1-0 lañ ko dóor ba ñu demee ba ca deuxième heure ba ASC déggoo moo doon jàkkaarloo ak ASC daaru salaam daaru salaam moo am ndam ñaari bal ci dara la dóor ASC déggoo tey nag ci àllarba ji euh, programme bi nii lay tëddee fële ca stade ma wadd wadd loolee nag zone 5 ñoom ñoo aye seen ñaareelu bëccëg ca première heure ba ASC gore mooy jàkkaarloo ak ASC ngaleel Ngalel loolee 14h45 la première match ba di am deuxième heure ba ASC eh, Xaar Yàlla mooy jàkkaarloo ak ASC Cité Ñax loole mi ngi am. 16 heures 45 ñu jógee région de Saint-Louis wutali région de Kolda fekk fa sunu correspondant bi Mbadia bi moom information yi ñu am ca colda moo ñu koy jox waaye nag yaatal gi dañ ci ànd ak sama copain King Ous yëf ya nu muy demee muy résultat ak programme. démb la woon ah, le 5 10e mois 2021 première heure à 16 heures étoile Idi da ko dóor 2-0 ASC Espérance moo ko dóor 2-0 deuxième heure Tim Timol Foyer moo ko dóor 1-0 troisième heure ASC Cité Nationale. da ko dóor 6-1 Cukaano moo ko dóor 6-1 3 4-1 ba Château d'Eau moo dóor 2-1 ASC Jamono tey au programme zone r un dañuy am première heure bi à 16h Bendula mooy joué contre ASC Ajax Amsterdam deuxième heure Jamfo Arc-en-Ciel mooy joué contre ASC Belfort troisième heure Fouladou mooy joué contre ASC Gadapara FC quatrième heure à vingt deux ASC Entente Bouna mooy joué contre ASC Kawaral damay amee si stade. national bu Kolda. kon sama jinne ji King Ous ñu ngi lay jaajëfal ci résultat yooyee jógee Kolda nga tasal ñu ko ak programme yi fa am tey nga wax ñu ko leer na naa ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk internet yi yéen tamit ñoo ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm ba beneen vidéo incha allah.